bokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal nañu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante nun ak suñuy moroomi jaam tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tolloole ak xew-xewub jamono ak ana lu ci ab jullit di nekk ak num ca war a def xew-xew bi mooy gis nañu ne li ci gën a siiw gën cee fës doo déglu benn rajo te doo te dé nekk waxuñ ko ca lu ne gàññ doo xool benn télé yi ne ci réew mi te waxuñ ca lu ne gàññ wala xët yi nga xam ne day xëy ñu di ko bind di ko jàng moo ciy gën a fës lu fëse noonu nag ci réewum jullit jullit yi ñoom war nañoo xam fañ cay fare attewuñu jëmmi jëf ji ci boppam ñu di ko wax politique waaye dañ cay tànn benn rek boo xam ne ñi yëngu ci politique bi dañ koy wax waxee ba ñëpp tàmbalee xool ay gët ñañ ko jëmale dañuy dégg ñu naan kilifay diine yi walla sëriñ si dañoo war a wax loolu nag bokk yi saa boo ko déggee ñu di ko wax waxee loxo dem na gémmiñ te ab tib yóbbuwu ko ca laaj bi nag mooy lan la kilifa diine war a wax ak lan la ab sëriñ war a wax ci loolu lan la doonte ab sëriñ ak kilifa diine duñ benn dañoo mel nañu dend te bokk xaaj ñoo bokk kilifa diine boo demee ci suñu mbokki awsa yi ñu ngi ko tudde maalam maalam mooy maalam rek foo xam ne xamukaay la ci diine lu way bëgg xam ci diine boo fa demee ka nga fay fekk maalam la ñu koy wax maalam bokkut ak may gi da may gi da nag moom ku la neex mën nga ko wooye ku la jox mbuusug suukar sax sañ nga ko wooye turu woowa mooy sëriñ rek waaye baat bi ci wolof sëriñ bi ñu ko gëstoo ñu bari gëstu ci nee nañ mooy li muy tekk siraaj ak niit kuy dox guddi da koy soxla di xam fa muy teg tànkam te bu ko séenee ci àll bi it xam ne am na ci nit yooyu fu nit nekk lay nekk mu wutali fa gindiku yàlla ba mu doon sawara nag kese ndax sawara kese kese am na tontu bu sëñ bi sëñ mag bi tontu woon ca gànnaar nee na kuréer moom moo koy génti bokkut ak nit moom la xamkatub wata waxoon ne ku ko doon tàggu bëgg a gont jëm fu sori mu ne ko déedéet woto bi nga yore am na ak nit waaye nit gi li tax ñu def ko ci mooy aw yoon fekk la ci guddi fekk la ci yoon nga war a àggale soo yoon niite ko ba àgg waaye doo ko taale ci dëkk di ko génn kon kilifa diine ak sëriñ bi lan lañu war a wax daa mel ne fi ñu koy waxee tudd naa ko mooy foo xam ne loxo daa dem gémmiñ te tibb yóbbuwu ko walla ñu dem ba def la waaja waxoon rek romb am pénc fekk mag ña toog ca garabu pénc ga ca kaw tóoj ya saa su nekk ñu xëy buuf ko ba mu set wicc ñu tonni leeñ maasale mu ñëw ne capp ci seen pegg ñu ne ko tee ngaa dem ba nële mu ne ah suuf sëpp yàllaa ko moom yéen a moom fii daal di àgg suuf nis tuuti jataay barax ba ñëpp dégg mu geesu leen ne ana fu ngeen waxoon ñu ne ko loolu weesu na xanaa xanaa kay bu benee ne waaye tey moom weesu na bu fekkonte ne bañ ko waxee daa dégg séddi leen cër ñoom ñëpp mu séddi leen cër ñoom ñëpp ña fa nekkoon la koy dal yàlla laa ko dogal waaye moo na ko jaare feneen fu dul foofee ak la ko fa dal dal ko fa bokk yi su fekkee saa bu ñu àggee ci xëccoo bi rek la kilifa diine walla ab sëriñ war a wax te fekk ba ñuy nos waajal ko ay at bind ko fu nekk na muy demee musuñ caa woo kilifa ak diine musuñ caa woo sëriñ suñ ko nee waxal li muy wax lu mu xamut la nar a wax wala lu yoonam nekkut te suñu Abdul Ahad Mbakke moo ne woon mbir ñette ko séq ñett ña kenn ku nekk war naa xam ni mu doon ci mbir ma loo xam ne da koo bokk ak ñëpp su fekkee da koo bokk ak ñëpp war naa bala caa jëfandikoo lu mu ca sañ-sañ mu wax ca ak ñoom ndax ñoo ko bokk ak loo xam ne moom kenn moo ko moom loolu moom lu ko ca soob lu dul yàq ko mën na ko caa jëfandikoo ak loo xam ne yoonam nekku ca la yoonam nekkul nag mu maandu ca day mel ne nag kilifa diine wala ab sëriñ moom ci mbir mii nga xam ne mooy xew bi ma mujjee wax dong la see mën a féetewoo ndax yëgut tinut dañoo wax ci ay néeg wax ci ëtt ba ñëw ci pénc ma fekk ko fa mu ne fagam toog ñu romb ko dem ba ci yàgg pënd bi noom jëm kaw am na sax ñu yuuxu ca biir pënd ba ñu ne na kilifa diine wax wala na sëñ bi wax lu muy wax kilifa diine it mënut a wax ndax moom dafa tënku ci li gën a wér lépp muy diine diine bokk yi lu nekk day dem war a fekk diine jël ca waaye diine wóotu topp ci ginnaaw kenn xajut fenn ci ginnaaw kenn xajut ci ginnaaw kenn xajut ci fenn moo tax li tax kilifa diine wóotu wax yetta ngi nii yoo xam ne fu fu mu nekkut gépp kër gu ñu tudde kër lu mu yaatu yaatu bu kilifa diine xoolee gisu ñetti néeg yooyee yoonam nekkut ca googu kër loolu du samay wax waxi suñu borom tabaraka wa taala la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko nañ yàlla moo jëkk a wax ci alquran ne yàlla mi nga xam ne moo leen bind di seen boroom di leen digal te sañ ko di leen tere te sañ ko te ëllëg gi si biir mu yorug pay moo leen dénk ngeen di sàmm kóllëre koo ameel kóllëre yow bu dara dese ci sa wet na mat sëkk la nga ca am na mat sëkk moom it su ko defee lépp mat wet ak ak wetam mat lépp baax waaye suñ leen woowee ne leen atte leen ñu it na ngeen maanu yéen moom bu ñu leen atteloo seenub atte waruñoo xam fa ngeen fare da ngeen a war ne ci digg bi tëdd njaaxaanaay ni seex di def yaa ji seex nga xam ne seex bu ne day jël wen di nàmp su boobaa nag seenu gën a farlonte ci la ñuy ëpplantee ndax saa su nekk da ngay gis seex boo xam ne moo ko yóbbul morom ja te mu ñoo bokk mel ni soow mu ñuy nàmp wala mel ni meew waaye ndigal li daal mooy koo seqal kóol kóllëre moom bul ko bu mu tàgg bu mu daggee ci yow sooy àtte na nga maanu benn ñaareel ba it boo xasee ba ne danaa def wala danaa bàyyi bu ko sa bakkan fekke bu ko sa ngor fekke mukk boo xasee ba ne danaa def moom ñàkk gaa am moom dañ nañ ko nettali sa gannaaw waaye na nga ci nekk bañ xam ne yow mii waxoon nga ko te ca nga faatoo waaye danaa ko bàyyi it luñ la ca bëmëx bëmëx nañ la rey rek ba doon la ca bëmëx waaye dugg ca bu mu tax nga mu fekk ngay dund moom ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dunde nag ñaar la dana ñëw ci ñetteel bi ñetteel bi kaleen boole ñoom ñëpp ëmb yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ngi nii joo xam daa ñëw fekk ko mu toog mu nuyu ko ci misaal jàmm santeeg moom ne ko dama la doon ziyaara maa ngi dem mu ne ko tey nga nekk comme niñ koy waxantee ñun ci suñ jamono ba naan dara waaye ne ko maa ngi ñëw yonent bi toog fa di ko nekk ba mu mën ñetti fan fu mu dem rek ñëw ne mbaa ndax kooku ñëw ne ñu ne ko ak gudde mu toogaat fa di nekk bañ waa ji ñëw di ko fa fekk kon daa am lu mu fasat nekk moom loo xam ne maa ngi ñëw jëla jàpp nekkit yo waa ji moom jàpp ko na ko yonent bi jàppe sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee mu ne ko yow kat ci ñetteelu fi ñetteelu fan ba benn ñaar ñetti fan ba yonent bi seen ko jóg tatafu ko ndokkeel ko ne ko mbaa jàmm la woon mu ne ko jàmm rek la woon mu ne ko ñetti fan a ngi nii maa ngi toog di la nekk ci maa ngi ñëw jàng ma waxoon kooku kon sàmm kàddu ab julit war na koo jàng bu baax a baax a baax fu kàddu nekkul nag waxuma la ab sëriñ wala kilifa diine waaye ab julit sax mënu faa dëkk moom mënu faa nekk yoonam nekkul ci foofa kër googu kër gu amul kàddu yoonam yoonu sëriñ nekku ci wala kilifa diine ñu ne Seydina Ismaayil mi nga xam ne moo jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti jamono te moom jëfam ak ñi mel ni moom ci ay anbiya ak i ay mursal luun ñëw gu yonent bi rek lañ doon waajal Seydina Ismaayil moom wax nañu ne nit joxante na ak moom randiw randiw nag kàddu moo koy jël moo koy joxe waaye jëf moo koy moo koy moo koy soto mu ne ko fi ñuy daje mu ne ko barab sàngam Seydina Ismaila dem toog fa am at moom waaja am at dikk ne ko damaa yàkkamti dañ ma woo ci lu gën a jàmp may ma tuuti ma ñëw mu toogaat fa am at di nekk xanaa at moom moom la waaye inde di wax one minute indian one minute buñ ne la one feeg one minute rek mën naa am sax girig dund lay doon du du ñëwaat far kon bokk foofu tam am njàngate ngi fi ci réew mi ñu bari gëm nañ te bokk yi waa réew mi ñoo jur ñi nga xam ne ñoo yëngu ci politique bi waa réew mi waa réew yëpp gëm nañ ne boo nee juróom-ñeenti waxtu ci suba la ñu ne ah juróom-ñeenti waxtu lañ wax waaye mën na si naa nekk ba midi nga dox li ngay dox lépp ak bu ko ñëpp waxee kañ lañ fay daje loolu ñëpp gëmënoon nañ ko waaye bu ñu demee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti sayidina omar ibn xataab ak astafurlah abdulahi ibn omar ak abdulahi ibn abbas ñoom ñaar doon nañ waxtaan ak jullit yi suratu tawba di ca wax ba agsi ci ay aayaat yoo xam ne ñaar ba ñett ngi ñaari ay ñetti kaddu yi ñetti kaddu yooyu nga xam ne mooy bu waxee kàcc ca kàcc mooy dolli ku xam mbaanik xam muñ def ndox da nga xam kàcc wala boog ñu dindi diw ga rek dindi la woon ca kaw la ca des mooy kàcc bu dee ciy wax nag mooy dugal ci lu ci bokkut dolli ko ba mu ne gàññ wala sax mu sos ko far sos soowum boppam te soow moom daa mel yàlla rek moo ko amoon biñ koy firi ba agsi ci wa minhum man aahada allah la in aataana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min alsaalihina ba àgg ci fi ma yamoon sànq ñaar ba ñetti aaya la dañ ne fii de biñ fii bi mu wàccee demoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun ñaar ñi de dañ lay laaj loo xam ne rëdd tiit ak jàq lañ ci boole ndax bi nga ñu koy firil da nga ne ñetta ngi ni ñoo xam ne ñetta ngi ni yoo xam ne ku mu nekk ci yow naafiq nga naafiq nag bokk yi mooy koo xam ne ab xolam daa am xelam day xalaat a génn ci diine am xelam ba ay cëram tàmbali koo jëfe lu ñu wax ñu ne kenn mënu ko waaye faasiq nag mooy koo xam ne génn na benn tànkam moom tàmbali na koo jëfe moo tax suñu borom ne ci alquran ñoom ñëpp ñoo bokk benn daayira innal munafiqina humul fasiqun ñu ne ko yett yii day ku wax dolli ca kàcc ca su la joxee rendez-vous du ñëw te soo ko wóoloo mu war la ñett yii day moom gannaaw mooy daayira munafiqin yi dañoo bëgg nga firil ñu ndax suñu xel dal ndax rët nañ tiit nañ jàq nañ te nee nga kenn ku ci am ku ci yor benn rek bu muy làng-làngee fu mu jëm buñ xaajee ni fàq ñetti xaaj moom ma ak benn ba yonent bi daal di ree sallallahu alayhi wa sallam ak a neexoo ni ree ni ko sëñ Moussa ka melale ci yaasin da ngay xam ne kenn reewandoo gut ak moom yonent bi ba mu ree mu ne loolu de moomu leen ko yéen ñu ne ndax yàlla mu ne loolu munaafiqiin yi ñoo ko moom bu ma nee saa bu waxtaanee kàcc loolu du samay wax yàllaa ko wax yàlla moo ma ne woon ida jaaka al munaafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah munaafiqiin yaa nga ne la di dikk buñ ñëwee lañ lay wax mooy nashhadu annaka la rasulullah yow mii de yoway ndawul yàlla li ni ko ñëpp di waxe rek lañ koy waxe mu yem seen làmmeñ waaye loolu yàlla moom xam na ne innaka la rasuluhu wallahu yaalamu innaka la rasuluhu yàlla xam na ñaar yëpp xam na ne ña nga ne di ñëw xam na ne danañ ko wax moom xam na li ñuy wax lépp te àgg guñ ca waaye suñ ko waxee ba noppi it yàlla moo gën a xam ne inna al munafiqina la kadibun la kadibun li ko waral mooy ittaxadu aymanahum junna mën nañu ñëw fii nga xool li nga gën a fonk ñu waatal la ca giñal la ca ne lii ma la wax danaa ko def maak yow ànd waaye buñ ca noppee noppi nañ ca buñ fa jógee rek jóge nañ fa ñoom wala buñ fa jógee bokk la ñuy daal di nekk ci ay pexeem rek mooy yow mii ñu teg ñu jox cër ba tax ñëpp di jëm si fi yow nu ñu lay xañee cër boobee ba kenn duuti jëm si fi yow wala kenn duuti la wóolu boo waxatee yàlla nag ne innahum saa ma kanu yaamaluun loolu su ko nit waxoon dañ naan mara dem si dafa saaga innahum saa ma kanu yaamaluun ak ñu bon lu ñuy def li ko waral mooy seen pas-pas daa tàmbalee génn ci diina ñu tudd ay munaafiquun seen benn tànk na cëpp ci bitti tudd ay faasiquun dalika bi annahum amanu summa kafaru fa tubia ala qulubihim foofu moom ku fa xas ba àgg duutu gëm dara li mu bëgg lay xam rek waaye duutu xam sax na mu ko na ma jar ba am nee na boo leen di dégg ñuy wax daal da ngay defe ne lii ci alquran la bokk neex lool wér lool waaye nag na nga xam ne ñooñu na nga tey ci ñoom buñ jógee fi rek ñu lay tàmbalee fexe wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xushbun musannada yaxsabuna kulla sayxa alayhim humul adu faxdarahum kon léegi ab sëriñ ak kilifa diine dafa am ndigalul ne tekk moom ci koo xam ne li muy wax danaan la yow mi ma koy waxal rek yaa koy daa koy dese waaye man su ma noppee noppee naa ci yàlla noonu yàlla musal ca loolu waaye su la diggee it béye boo jër sa duma sa doom mooy fi muy waxee ne wa minhum man ahada allah wa minhum man ahada allah la in atana min fadlihi lana saddaqanna soo ma jàppalee ba ma am li ma bëgg li nga bëgg da nga ko am soo nangoo ne li nga bëgg moo la koy defal rek moom tëggatu la fenn waaye su la ko waxee danga naa ko déet li ma bëgg mënoo yàllaa ko man moo tax am na kilifa gu ne fii bañ ko ne Senghor sab xarit ah Senghor dane déet du sama xarit ndax xarit ñu bokk pas-pas ñoo koy siq al axillaau yawma isin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin daan ne déet moom dafay ñëw bëgg loo xam ne mën naa ko mayit ma bëgg loo xam ne moom mën na ca dara ñu jëflante ca mu yam fa kepp wa minhum man aada allah la in atana min fadli lana saddaqana wala nakuna min asalihin am na ñoo xam ne bu ñëwee loolu daañu la ko dig waaye suñ ko amee liy jëkk a jafe mooy jot leen téléphone wala gis ku leen xamati ndax ñañ xamoon ñëpp dañ leen di bàyyi wut ñu bes peq fa lamma ataahum min fadlihi baxilu bihi wa tawallaw wa hum muridun tawallaw wa hum muridun ñaari baat la yoo xam ne benn bi day fet li morom bi wa tawallaw wa hum muridun ne meng waaw day jékki-jékki na mes ne meng aaya boobu it nee na fa aaqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima axlafu llah ma waadu bima kanu yakdibun te xamuñu ne yàlla xam na la ñuy wax bañ ko wax agut ak buñ ko waxee ak la cay topp lépp ñoom nag dañuy defee ne li nit ñi bëgg lépp ci seen seeni yoxo la nekk ku gëm loolu rek ñu tàmbali la sax xeex moom ndax dañuy xam ne yow mi xamal li nga yor lu mu doon moo tax yett yooyu bu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne koo xam ne bu waxtaanee kàcc ca su la diggee yaa koy dese waaye moom noppi na ca soo ko wóoloo ba dénk ko mu war la ca benn bu ci nekk nee na leen ndax foofu ngeen nekk ñu ne ko déedéet yàlla tere ñun koy bokkuñu foofu mu ne kon bokk fu ngeen ko dégg ci daw leen fu ngeen ci dégg benn rek daw leen fu ngeen dégg koo xam ne kii bu waxee noppi na ca yaa ko dese te dana ca dolli ba mu ne gañ mën na koo seereel nii sax ne diw mi fekk na ko mu ne waaw maa ko fekk de te dara xasawu ca nee na kër googu néeg boo ko seen dawal waaye néeg boo seen it koo xam ne lu mu diggee du ko def it dawal waaye néeg boo seen it kook ka fa dëkke saa boo ko wóoloo mu wor na nga daw googu kër te bul jaar see moom a mbedd sax moo tax bokk yi laaj bi dama koy laajaat mooy bu fekkee ab sëriñ wala kilifa diine moom day tënku ci waxi suñu borom subhanahu wa taala di tënku ci njàngalem yonent bi mi ko bi mu ko leerale roye ko ci ñi nga xam ne ñoo ca topp topp ci topp ci ba mu jot ci moom ana lu muy war a wax ci diggante boobu te duñ ne diw ak diw ci lañ bokk ne yetti jikko yi mi ngi ci ñoom waaye soo déggee daaneel wax bi rek boo dee kilifa ak diine dootoo ca mën a bokk soo dee sëriñ it di siraaj dootoo ca mën a bokk dañ naan fii rekk la yam njariñ lu yam fii dong la dimul àllaaxira loolu moom saa boo ko déggee génn ca pas-pasu jullit mooy lépp àllaaxira la jëm yow ma yaqumul xisaab yow ma yow ma yu bari yi ab jullit da ko war a gëm fu mu toll ak lu mën di dugg ne ëllëg ngi ñëw te dañ koy àtte yow ma tubla sarair sëñ bu mag bi ay mbindam bari na ca gàññ wastur maa ibana wastur maa ibana ak di ko tu- ak lu niroog moom te fekk yow ma tubla sarair lay wax yàlla nag ma suturaal yow ma tubla sarair mooy su boobaa amut lu ñuy nëbb te loolu lépp bokk yi fi lay tàmbalee moo tax saa boo déggee lépp njariñ lu fii dong la yam demut àllaaxira ba nga génn ca soo dee dund diine ndax lu tàmbalee adduna yam adduna du dara amul njariñ ci xiin amul njariñ jullit moom li muy gëm mooy lu tàmbalee fi rek àllaaxira lay lay teeraj mu jot ak pay wala bu tuubutal mu jot ab safaan ñaar yooyu la ñuy boole gëm moo tax ku xamut dëgg dëgg dëgg la ñu waxtaane ci biir néeg ba door a génn ci ëtt bi xamut la ñu waxtaane ci ëtt bi door a génn ci penc mi na ci maandu tey ñaan jàmm nag yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi xew-xew bu ñuy séentu ñu àgg ca ak jàmm te weesu ko ak jàmm lépp loo xam ne lu ci indi fitna la ci moom lay jaare waaye yonent bi moo ne woon al fitnatu naimatun laana allahu man ay xadaha loolu lam ca tekki mooy ayab suñu borom bi muy wax ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen wattandiku leen daw leen lépp luy jur fitna ndax mën nga koo taal waaye xamoo fu muy yam day law lawaale koo xam ne sax yoonam nekku ca ndax fitna yi judd ci adduna bi ci ñaar ñu ko waxtaane donc lay mën na mën na tàmbalee ci ñaar ñu ko waxtaane wala kenn ku ko tàmbalee am pas-pas bi rek génn taxaw ci mbedd mi def ko mbooloo ma roy ko ca mu lawalaw ba àgg ci ñoo xam ne seen yoon nekku ca te bokk yi fitna yàlla ñu ci yàlla musal am na fu suñu borom di wax ne wal fitnatu akbaru min al qatl ak ashaddu min al qatl léeg-léeg mu jublu ci ashirk waaye du fa mën a génn yàlla moomoom jàmm ne gut leen jàmm aw nit ne déedéet jàmm bu mu fi amee bu yendoo it bu mu fanaan kooku daa mel dafa bëgg a tuxal bëgg-bëgg suñu borom andi fi bëgg-bëgg boppam tam te du ko fekke moom te bokk yi ma fàttale ne réew mu fitna nekk kenn du tala jaamu yàlla sax kenn du tala liggéey am na ñu ci xam dara am na ñoo xam ne xam nañ ci dara boo mënut ñàkk génn jënd dara ca bitig ba it bayee ba looy dénkaane nga dénkaane ko ndax xamoo da nga dellu seen déet ñiy jàngale daal bis bu set ñiy wax ci rajo yi ak télé yi naan yéen ñi nga xam ne xamu leen ci fitna ci dara fu ngeen déggee taf-taf defee nu leen te bañ a jóg ba ba muy sedd ndax néew na mu fekk ku tëdd mu di ko rey xanaa dañ ko tiim dër ko ko loolu dong lañ ci man waaye bay rëcc boroom di dal kenn moom kenn mënu ca dara boroom sax te mën na am ci du ko ci jóg loolu ci gën a tuuti fitna yi benn bis manis na koo jéem a defar fukki at te du jag ndax bu ca bakkan xasee ba des rek bakkan moom yàlla dong moo ko am moo ko mën a defar te daf caa teg lu diis kenn ku fexe ba fitna judd ba kenn des ca képp wax na nañ koy def nañ ko yóbbu ca digg ëtt ba ci digg pénc ma ñëpp fekk ko ñu ne ko ndax yaa ko tey bu dëgg réew fit ba ne moo ko tey jubluwu ci kenn kenn yónniwu ko nañ ko def nam def waaja su fekkee nag moom mii indi fitna fitna ja daa jaare ca fitnaam joojee faagaagal mbooloo mu bari yàq alal ju bari nag kooku suñ ko àttee ni ñu koy def benn yoon lañ koy mën a rey waaye la ci def day des ak suñu borom subhanahu wa taala moo tax yàlla noonu yàlla defal jàmm te dooleel ñu jàmm luy jàll rek la buy gën a jege sax danañ ci gën a ñaaxaat waaye luy jàll képp la ni ay moroomam jàlle Sénégal wéy di dox moom ñi fi dëkkoon nit ñi ci yàlla jël rek di dem ci jàmm ñu naan leen yàlla yërëm leen ñi fi deseel yàlla nañ fi yàgg waaye Sénégal du tax mu taxaw kon boog ku la nekkaay ñu dem ak ku mën di doon ñu yee fitna nee ko wool sa waa kër ana sa soxna mu ne mi ngi nii dañu ne ko ana say soxna ñu ne ñu ngi nii mu ne ay ca leen nañ jiit la ànd dem te ñu taxaw ca kanam suñ taxawee ca kanam lu ñu dal jëkkalee na daal buñ daanoo ñoo xam ne lii kat jaaru na kon jar na ko su boobaa bisub dee du bisub dund ngor daal di war a judd as goro ngi nii bokk ci yax bu rëy rëy daa ànd ak moroomi gorom loolu lay jeexale mu tënk lépp daa ànd ak moroomi gorom dem ca jëflante ba ca xare ba moom kenn mu ñëw di ko nettali fasam wi set wicc ay yéreem set wicc kuñ ko laaj mu ne dee na nu mu dee mu ne dañ ko rey ñu ne ko waaw yow léegi am na loo war a wax ak ñun foo nekkoon bañ leen di rey yaa rekk moo mën a am dangaa fenn dangaa wax ba génn ci walla nga daw su fekkee dangaa wax ba génn ci waxal li nga wax ñun ñu sàkkal la pexe léegi ndax ñun kenn du bokk ci ñun di wax lu dul dëgg bakkan jëraluñu ko waaye su fekkee dangaa daw it nañ xool sa gannaaw ba xam am na ay yar yu la doon dalam deet ñu xool mu set wicc nuñ ko def yóbbu ca pénc ma ray ko ne ko dangaa war na dee waaye waroon ñoo di ko nettali bu dee askor kon boog bokk yi lu ñuy bokk lu nekk nañ ko bokk ci ngor rek suñ ko naree jël ñun kenn bayee boo sax mu tuur waaye bu ko kenn jariñoo moo gën moo gën nangu ko ci seeni loxo nax leen jël ko jéem koo jariñoo yow kese loolu moom yàlla na ci yàlla musal te day dikk ci ñetti yonent bu wax ne kum nekk ci moom naafiq dëgg la su waxee sos wala mu dolli su diggee wala mu dig la soo ko diggee moom dana fex ba jot waaye soo diggee moom jër duma sa doom waaye soo ko wóola ba dénk ko waxaale wuñ ko daf koy def rek ne kañ doon yóbbante nettali nañ ko ay yoonu yoon yóbbante kenn dem ne ko jox ma sama la ma la yóbbante woon yóbbanteetuma mu ne ko yaa ma antas yaakaar lii nga ma yóbbante ba ma yaakaar ko waajal sama lépp nga di ko jël nii rek di ma xool maa ko moom yóbbanteetuma kon bokk bokk yi koo xam dana ñëw na jox ma dénk ma kese am lii te dénk ma am am am ñaar fukk yi te dénk ma sa mbuusu muraaki bi nga xam ne juróomi téeméer mayu la ko bokk yi lu ku ne xam na ne nekkul lu laxas sa ginnaaw yàlla na nu yàlla musal nag ci xam lu muy doon ak njariñol la muy doon yàlla na yàlla defal dëgg ak topp te mu seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin